salaamaaleykum Cheikh internet de suñu gaal 24 mbégte bànneex daal doon saa su topp gi ngeen topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ak suñu plateforme bi yàññi bii nga xamante nag moom mooy suñu gaal 24 mbégte la nag saa su ngeen di topp suñu ay programme rawatina sa plateforme bi nga xamante ni c'est le di net ah waaye tamit ñu ñëw ci émission bi nga xamante ne c'est le di web euh, mu émission boo dañ ciy faral di dalal ay kilifa waaye wala ñu siy wax li nga xamante ne moom mooy seen xalaat te nag ñu dala ci koo xamante nag ku sénégalais ràññee la waaye rawatina nag euh, ci li nga xamante ni moom lay faral di yëngu ci wàllum ñaan mu doon doon mu doon nag doomu Saalum Pire doon Saalum Saalum Pire ñu gën ko xam ci Serigne Ngobe Seck Serigne Ngobe Seck Saalum Saalum maa ngi lay nuyu. alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diini yaaka nahmadu yaaka nastain ihdina sirata mustaqim sirata lasina anamta alayhim xayri mahdubi alayhim wala daalin alhamdulilah alhamdulillahi haq hamdi alhamdulillahi hamdan yuwaafi ni'mahu wa yukaafi masiido wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbi wa sallam mhm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal mhm. di wax ne euh, xat-xat yi moo bëri rek waaye yàgg neen fii bëgg a teew waaye yoonu saalum yéen ñi tënk mhm. waaye yàlla dogal ñi génne si julli ñi ñaanal ñëpp yal yàlla nangul leen seeni koor yàlla fulandal leen ko lépp lu luñ ci sàkku rek luñ ci ñaan rek na ko yàlla nangu ci saayir ak ci baatin di ñaan ci réew mi jàmm mhm. lépp loo xam ne laaj la rek luñ ci xam ñi tontu la ko luñ ci xamul ñi dem gëstuwaat ko ba xam ko bismillah mhm. ayca mi tey moo doon suñu invité fii ci suñu plateau ñu gën ko xam ci Serigne Ngobe Seck Saloum Saloum waaye tamit muy doomu Saloum Saloum Pire tey nag moom nañu dalal suñu plateau bi fas yéene seq mu waxtaan rawatina nag li ci jëm ci li nga xamante ne moom mooy actualité actualité nag bi ko bokk waxee nag bokk nañ ci li nga xamante ne mooy wàllum politique ah way yi waaye dawlu politique yi ku nekk xam ne ni sëñ bi ci li may door rek sama laaj dafay bokk ci li nga xamante ne moom mooy les saisies entre ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr ak Ousmane Sonko procès boobu day daal di amaat moom boo ñu siy laaj dañ siy sawar lool ndax dafa nekk mbir moo xam ne sin bëgg-bëgg la benn bu njëkk mooy daf dañoo bokk si ñu nga xam ne dañoo am yaakaar ne. Mhm. bokk na si ñu mën a defar réew mi. Mhm. beneen bu ci topp nit la koo xam ne gëm nin ne doomu aadama bu dëgg la. beneen bu ci topp tim dañoo gëm ni nit la koo xam ne dañ koy tooñ di ko teg naka su dul noonu. Mhm. loolu nag buñ koy def nit nga bokk si réew mi. suñ la si laajee war nga ci mën a wax sa bëgg-bëgg li nga xam ne moom nga xalaat. waaye euh, tey su fekkoon ne. misaal rek bu fekkoon ne yow sa doom lañ ko def. Mm-hmm. ñi topp ci benn mbir moo xam ne ay xat ñi topp naan lii ak lii. Mm-hmm. di la waaganteloo foo dugg ñu ne la dundool. Mm-hmm. benn mbir laay dem fenn bët bu seen ñu ne jàppaat neen ko tey indi ci ay coow ci réew mi yu dul jeex. loolu leer na la ne yow buñ la doon laaj sa xaqulaay taxalaa da nga naan du dëgg du yoon. ndax li ko waral mooy. benn bu njëkk bi mooy. tey jii nii même bu fekkoon ni mbir mi lu am la sax mhm. yow fu ne xamatoo bëgg-bëgg ngir ñi jàllale mbir mi ndax li muy yàq moo ëpp lu mu defar lan la defaral Sénégal te ñin ñëpp buñ fii toog luñ bëgg mooy Sénégal avancé ba nga xam ne danga mën a dox ci jàmm yow fu ne nii bu la sées bii jot doo xëy si wala boo xëy see boo yegg si tëj sa kër mhm. léegi loolu loolu duñ duñ ko jéem a euh, bàyyi mu jeex nit ñi mën a nekk si jàmm. Hmm. loolu gënut. mais est-ce tamit nekkul loo xamante ne mbirum mbirum mbirum loo xamante ne maam yaa ma tooñ ak tooñu ma la est-ce que loolu tamit jarul tamit. waaw ya tooñ la. xam nga tey benn mbir moo am mooy. Hmm. Hmm. koo xam ne dafa génn réew mi làqatu mu si réew mi. léegi bu fekkoon ni mbir mi du noonu. jarul ñi naan euh, tey kii kaay xàtte suba kële la. Euh, avocat yi nii avocat yi naa. Mm-hmm. bët bu yàlla sàkk da si dégg loo xam ne lu bees la. Mm-hmm. bët bu yàlla sàkk da ko si dégg. Mm-hmm. te pourtant moom mu si réew mi te bu bis bi war a jot dañuy jël camion yi policier yëpp gaare ko buntu këram. ngir ne kii dafa war a woyu ji te il faut day am loo xam ne day xew. yow koo xam ne bu war a dox dem tribunal réew mi yëngu. Mm. loolu doo doo seetaat pexe. bañ a yëngal réew mi. mais mais mais daal jàpp nga ne kii di Ousmane Sonko moom wax dëgg fa yàlla am nga yaakaar ne ci moom 2024 euh, mu doon président. incha allahu rabbi Sonko. Hmm. yàlla xam ne ne bu fekkee ne bëgg neen kaay faagaagal. Hmm. man ñaanuma ko yàlla yow bul ko ñaan yàlla. ndax buñ ko faagaagalee réew mi dana yëngatu yëngatu yoo xam ne kenn du xam fu mu jëm te ñun ñaanatuñ yàlla Macky Sall jiite ñi beneen at. loolu ñaanatuñ ko yàlla. ñaanal moo tax. waaw non dafa gënut ci réew mi xam nga mbir moom. Hmm. si ngoom boo ko doon yéey sax bu sàppee dootul la neex mm-hmm. nit ñi moom la ñoom ñoom ñoo dem ba nga xam ne Macky Sall dafa leen sàppi mm-hmm. loolu yàllaa ko def ji nga Sonko mm-hmm. dafa bëri loo xam ne du ko indi si réew mi te loo xam ne amut ko man doomu Saalum la mosuma mën a toog si télé si micro di wax lu du dem bay dikk toog si daara ji loolu rek la ma yàlla bindee woon damaa dem ba toog foo xam ne nii Sonko jaral ma man nangu di wax si politique loo xam ne man mosuma foog ne dina dina ma ko jaral ndax ji nga Macky Sall ba muy falu xam nga lu ma fekk may def. sarse mm-hmm. gerte ba ñëw di jaay. ba Macky Sall waaw. Mm-hmm. ñi indi photoom ñin ñëpp ñi gisandoo ko si seko bi na kii dee doy nañ. Mm-hmm. ji ba mu faloo ba léegi boobu la sin avancement gëj dox si wàllu mbay mi. waaw moom ak Sall waaw léegi nag tab booba ñin bu politique ñëwaan foto ni dañuy toog ba élection ñëw rek photo ñëw ñu ne kii moo baax ñi ànd si Mhm. Sonko dem ba indi fu ne yow nga dalal sëriñ mii wax ci politique moo gën a yomb nga dalal ko ci mbedd mi. Mhm. ndax mosoo gis sëriñ bi wax ci politique avant Sonko di ñëw. dëgg la dañ daan toog rek dallu. Mhm. tey da ngay gis sëriñ boo xam ne wax ci politique moo ko gën a neex looy gis ndax dafa gëm ne réew mi dafa war a avancer te ñi ko war a avancer sëriñ yi ci leen bopp léegi buñ ñëpp defee ni sëriñ bi daa war a toog ci ruqam rek di wax. maanaam moom lu intérêt rek lay wax. Mm-hmm. du sotti léegi nag Sonko dafa sensé loolu dafa dem ba toll foo xam ne man mii damay gëm ne Sonko tegu si réew mi mooy tax nit ñi seen soxla yi wàññeeku mm-hmm. xam nga tey ñu bëri dañuy ñëw ne damaa ñàkk damaa def nii réew mi dafa dëgër dimbali ma si càngatu ubbeeku mm-hmm. te fekk ne réew mi dëgër na sax waaye dund gi moo métti dund gi moo seer ba ëpp loo am du la doy léegi nag lool lañ gëm ne moom moo koy sensé te ni mu koy waxee dañ ko koo gëmee te dañoo xam nga yow ba nga dara gis ci politique ba léegi mosoo gis politicien bu taxaw waat ne su ma su ma leen na ma war nangama nangam. Mm-hmm. ay nitam toog di ko waat ku mel ni ay sëriñ ku mel ni ay Cheikh Bara mm-hmm. toog ci tele di wane ni Sonko mi ku dëggu la te ñoom daa am fuñ jaar ak moom xam ko. Mm-hmm. loolu loolu dara waralut ko lu dul ne doxalin bi muy doxalee loolu nag lañ ko wóoloo rek ba lim nekk ñu ne sa ji nga procès bii nii. jàmm moo ci am. aji saara sonko bi jàmm si am te fii ba illaa yawmi diini diggante aji saara sonko doo si gis naka su dul noonu si wàllu sonko xam nga xam nga xam nga xam nga da ngay kilifa euh, sëriñ Gobe Seck mu ko xamante ne dañu lay bàyyi xel bu baax a baax a baax projet bi ñu bare jàpp nañ ni ci yenn kilifa yi wala yenn ñi nga xamante dañuy wax ay maara lañu dañu projet bi gëmuñu mu am le 16 incha allah yow da ngay bokk ci ñu koy dëggal waaw man moom lii dina xam ak lii du xam moom du ma si du ma la ko wax xaw ma si dara li ma la mën a garantal daal mooy hmm. ba ma dara toog man ak sama ay fukki morom ak li toog. Mhm. bët bu yàlla sàkk ñi toog di wir de guddi ba bët set ay jalaal. Mhm. ngir Sonko. Mhm. ma laa wax kañ la kanaa xamoo ne. boo gisee ñu naan Sonko boo ko songee xam jafe-jafe. Sonko boo ko Sonko sànku. loolu. dugul loo xam ne dañ koy wax nii rek carrément. billaay wallaay xam na ñoo xam ne nii si réew mi. wir de seen jalaal yu tàng dem rey seen tuur seen dere toogaat. te man bokk naa si ñoo xam ne teewee neen ko te def naa ko defati ba ma gëj ngir ngir rek. ba ma gëj nelaw te wirdu lu wirduhuma Sonko lu ma treize mille jalaal xaw ma kañ la barki alquraani karim hmm? nga ñëw déy ma sa soxla. Hmm. su ma ko mantu boolee soxlaab Sonko du ko def. Hmm? waaw ndax damaa gëm ne bu Sonko faloo sa jafe-jafe wàññeeku te yow jafe-jafe rek nga may jàmbat. dëgg la loolu la rek. yow daal tudd gudd goo xamante ni ñaanaloo Sonko. billaay wallaahi soo ma joxoon milliard na ma ñaanal ma su ma toogee sama xel Sonko si ne. te kii wirda wirda kat dëgg soo téye kurus ku sa xel nekk aajoom day faju te su sa sama xel bu sa demee rek dama naan ci barkeb turu yàlla wi yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg. dëgg bu dee lii gën la da koy jox te daa gën. Mm-hmm. ndax nit mënoo dëkk di ko ñaanal. Mm-hmm. mosuñ lay wan lu lu lu jaarut yoon. Mm-hmm. man mosumaa gis si Sonko loo xam ne nii naka su du noonu dana xam ak du xam. en tout cas daal jàmm see xam si côté Sonko. jàmm am jàmm daal dana si am xaw ma dina amam du am waaye daañ def pexe ba jàmm am. lépp luñ ko na ma teg mhm. jaral nañu si ni bakkan yi waaye jàmm mooy am jàmm dina am incha allah ayca noonu tey moo doon suñu invité mu doon kilifa goo xamante wax dëgg fi yàlla du wax ci politique ndax euh, moom mooy point de am am na droit tamit ci li nga xamante moom mooy xam-xamam Serigne Ngoba Seck nag euh, saalum saalum la wax dëgg fi yàlla fajkat la ñaan ko ci yàlla la comme ni ma koy waxee rek waaye laata loolu balaa ñu ñëwaat ci politique euh, dañuy ñëw nga xamante ne moom mooy seet boobu ko bu ñu ñëwee sëriñ Ngom rek euh, ñu ni seet. alhamdulilah. dafa nekk mbir moo xam ne bëgguma di si waxati. Mhm. ndax yàlla daa dogal. Mhm. Euh, xam nga jamono ji dafa toll foo xam ne. Mhm. Euh, foo natt jafe-jafe yi wesu na ko te nit ñi fu ne bu ñuy seetlu. li ñuy bëgg mooy nga wax leen ba wax loo xam ne du waxuwaay te mag ñi nag. boo demaan di seetlu dañ lay wax li lay jëriñ xam nga seet. Mhm. nit ñi fu ne dañ koy jaawale da ngay dañuy bëgg nga nekk di leen wax bañ waaru mhm. te seet ay mbir a ko waral mhm. mooy nga wax nit ki moom mooy kan wax ko lan moo la war di saraxe pour ay mbiram di dox wax ko biddiwam lan la rawxaanam si lum ne lii mooy doxal sa mbir lii moo lay gàllankoor lii kay dindi lii mooy buntu seet bu dee lii la moom man seet laaju ma ñaari dërëm nit boo ñëwee ba sama kër seet bu dee sama kër ngay ñëw boo ma indaalee dërëm bég naa. dërëm dërëm laa soxla nga teg ko sama kanam ma wax la loo du lu du dëñ. loo bëgg dégg ma wax la ko. Hmm, dërëm bu dërëm billaahi dërëm laa soxla. dërëm daal boo ko ëndee. Hmm. loo mën a wax. Hmm. li may nekk Dakar nag moo néew wax dëgg yàlla. dëgg la waaye saa bu ma fi ñëwee. kii ñëw indaaleel dërëm soxluwuma leneen lu dul lool boo ko ëndee daal boo ko tegee sama kanam. dinaa la wax lépp lu ne si yow wax la li lay jëriñ. Mhm. si saayir ak si baatin xam nga man seet dama koo jàngoon si saalum ba nga xam ne su ma génnaan si ëtt bi su ma xëyaan ba wir de samay dog génn ku ma njëkk a dajeeg mhm. dinaa la wax loo xam ne da ngay tiit si dëkk bi waxuma la si moom de si dëkk bi yëpp mhm. na ko dëkk bi dee nangam nangam diw wax ko mu def nangama nangam diw wax ko mu def nangama nangam loolu demoon ba toll foo xam ne mu gi sama jur dafa ne ma bul waxati dëgg la loolu doo ko am si tombal ma defal ma lii defal ma laa dangay nangoo lëggéey kurus. Hmm. xam nga lu tax sëriñ yi di jaawale benn mbir mooy. Hmm. man damaa war di lëggéey kurus sëriñ laa yow dangaa war di cangatu. Hmm. sëriñ dafay boole sangu ak wirda ndax wiir wirda moo lay may ku ñëw jàmbal la soxlaam boo ne ko incha allah rek mu faju dëgg la sangu moo lay may looy lijjanti mu neex. Mm-hmm. te yow looy lijjanti mu dox ngay bëgg. dëgg la kenn jàmbatu du la soxla. Mm-hmm. loolu la waaye bu fekkee sëriñ bi daa bëgg a teg ay xàmbam di sangu pour di am xaalis rek pour nit jàmbat ko soxlaam mu ne eskay du yomb. dëgg la moo tax ñin wirde la ñuy gën a yare. Mm-hmm. soo xoolee sama tànk yi. dama daan toog ba quatre heures sama woy jur benn ket la daan yor di ko si dóor jogal wirde. loolu dañ la koy yaree xam ne da ngay ñimi wirde ñimi wirde ba nga xam ne. Mhm. fii may waxee ak yow nii man heure bii ma ñëw si yow si nelaw laa waroon a def. waaw xaw ma nelaw trois heures xaw ma nelaw kii man daal guddi gi moom ma gën a neex si sama dund. Mhm. loolu la mhm. waaye daal bu dee si fànnu seet la. képp ku ñu si woo. loo nëbb lu ne daañ la ko wax. ci wàllum seet. waaw man nag sama seet xamul naan bitim réew lii laa lay seetalee Sénégal lii. ku waay mën a don foo man a ne. Mm. benn mbir mi laay seete. moom ngay seete. sama kër daal laa xam ne kii ñëw dërëm la waaye keneen ku ma woo ku ne. Mm-hmm. da nga am loo ma yónnee ma seetal la. Mm-hmm. waaw waaye nag mm-hmm. bu dee ne bitim réew lii la Sénégal lii la amul lool. mais lan lan moo lan moo nga tax nga kuy ñëw sa kër nga taamu dërëm. parce que dafa am ñoo xamante ne maanaam dama ko defoon noo xam ne. Mm. ku ma woo dama naan la jarut nga may yónnee jox ma sa tur ma wax la le te sax yàlla dogal na bu dee diggante sëy ngay seetlu bul ma jox dara. wax ma turu bul coupé wax ma turu diw laa bëgg a xam ak diw seen sëy nu mel balaa ngay coupé ma wax la njëriñ la. maam même bu fekkee si wàllum seet la wàllum sëy jarul jarul. jarul nga maa yónnee dërëm. boo ne ma diw ak diw laa bëgg seetlu seen diggante ma wax la lu sa ne. Mhm. bu baaxee ma wax la bu bonee ma wax la bu laajee sarax ma wax la bu fekkee ne ndaw si mënoo koo xiilif ma wax la. Mhm. dégg nga bu fekkee ne nag nit ku may seetloo nekkut fi lu waral manaan la boo ñëwee dangay ngay indi dara hmm. mooy ne dama daan dem ba tollu jamono joo xam ne hmm. yàlla dafay dogal su ma ko waxaan samay mbokki sëriñ hmm. ñoo may woo di ma woo di ma woo di ma woo ba mujj gi ma ne léegi naa def ku ñëw teew ma seetal ko si dërëm ku ma woo ma seetlale boobaa dootuma sonn te Sénégal dafa métti dëgg ndax nit bu la joxee juróom rek dafa naan moo la moom sëñ bi yónnee naa la euh, deux ans naa la nangam seetaloo ma di la di la di la wax di la wax te fekk ne hmm. lim la yónni noonu leer na leer yàlla yow mënoo see def dara te daara nga yor di dund leer nañ la xëy dépasse cent mille du sa problème. dëgg la léegi nag ñi yónni la téeméer di la kii il faut da naan kon ki may seetal ku ñëw na def lii ku ñëwut toogal. Hmm. ma noppalu. Hmm. ndax réew mi xam nga nu mel yow léeg-léeg nit nga jànkuwanteeg yu mel noonu mm-hmm, dëgg la nit dalay yónni lu tuuti jàpp ne moo la moom dëgg la looloo tax ñi doxalee ko noonu waaye duxul ne dañoo jàpp ne kenn du ñu gis ak yooyu ku ñëw seen kër andiloon ni seetal la ku ñuy woo dag ñuy yónnee dara ñu ngi si sant yàlla bu baax alhamdulilah masala ayca mi ngi noonu ñu gën ko xam ci sëriñ Gobe Seck Saloum Saloum wax dëgg fa yàlla Saloum Saloum pire la euh, te Saloum Saloum nag xam nañ leen ci faj ak ñaan yàlla ak jàng daara wax dëgg fa yàlla euh, ñoom rek ñoo occupé daara yi nga xamante ne ñoo ñoo fi bari lañ ci occupé waaye nag numéro

Mhm. du wax ne damay wàcc yoon wi ñaay si këri nit ñi si yoon wi laay jaar mhm. ñu ne ko doo fi jaar mhm. bay xeex am loolu laa bëgg nit xëy toog expliquer ma lan moo ko waral loolu rek laa bëgg ndax tey damaa mëntu comprendre damay dem wër nit ñi waxtaan ak ñoom laaj leen seen bëgg-bëgg si réew mi loolu jarut coow bàyyil mu dem xam nga boo gisee jamono jii buñ euh, am na si gannaaw dañ daan wax naan nen toog rek bu bu wotee jotee ñi sànni seen carte kiy wàcc wàcc fu ne nit ñi gëmatuñ lool te man gëwuma ko. dëgg la damay xeex ndax Macky sàlla bu bu ñu waxee loolu. Mhm. dafa naan posé naa nangam te bu ko defee musiba xam ndax e, doole lay jaay si réew mi te mhm. léegi nag man Macky Sall daal li ma koy ñaan. Mhm. mooy ne ngir yàlla nañuy dimbale e, te bañ di indi fitna si réew mi. waaw ndax. booy dox ñi katal la dóor la ay lakk lacrymogène mhm. sooy wax si Sonko ñu ne la yow kanaa dangaa repp mhm. soo man fu ñu toll nii ni ma commencé waxee si Sonko nii mhm. fi ma dëkk yëpp dañ naan ma yow de Macky Sall léegi mu jàpp la léegi yow lan moo waral yow su ma toogee sama kër di wax naan Sonko laa bëgg ñu ne ma dangaa repp su ma toogee di wax si Macky Sall ñu ne ma yow yaa nekk si jàmm léegi loolu jaaxalul la pourtant loolu du yoon dëgg président lañ war a gën a mën a wax ne ko lii nga def baaxut ndax ku yor kër. Mhm. kër gi doxut si doxin bu normal. Mhm. buñ ne la baaxut. Euh, doo xam kër gi fu mu mën a nekk il faut ñu si sa gannaaw ñoo lay wax lii baax na lii baaxut. Mhm. say noon ñoo lay wax ngay mën a tax ngay jaar yoon ngay mën a xam fooy jaar. dëgg léegi nag buñ ne la mëkki li ngay def baaxul rek ñu ne coow jum na buñ ne li ngay def baax na nga ne kaay sama wet. loolu du réew. dëgg la en tout cas daal moom. Mm-hmm. Sonko moom nañ ko bàyyi si jàmm te euh, yàlla dina ko defal jàmm ndax bu dee ñaan la. Mm-hmm. am na ko. Mm-hmm. bu dee bëgg la nit ñi bëgg neen ko. bu dee respecté la nit ñi respecté neen ko. bu dee nit ñi jox xeex ngir Sonko xam na ñoo xam ne Sonko jël réew mi. moo leen gënal ñoom ñi continuer di dund maanaam Sonko bu na ma perte réew mi jaral na leen ñàkk seen bakkan ku dem ba toll foofu nag bàyyi ko ñi doxal jàmm bu dee yow réew mi ngay toog jiite ko moo la ñor mhm. war nga mën a bàyyi ñi continuer si jàmm ndax li nga waxoon mooy da ngaa bëgg a teg réew mi ci euh, normal mhm. avancement am mhm. te ay lacrymogène moom avancé la wu réew ndax benn boo si lakk lu ne sin alal nga lakk. Euh, da ngay faral di yëngu ci wàllum nopp parce que nopp su dañuy toog naa mën naa ko ci léegi euh, léegi te a go xam nga am na loo xam ne tiital nit ki la. doo nopp ci 24 heures déedéet xam nga nit ki ñëw nga ne ko 24 heures tey balay suba lii dana faju loolu du yoon sax si ñaan. dëgg la man xam naa nopp yoo xam ne mën naa laa garantaan na la ñetti man naa laa garantal naan la une semaine mën naa laa garantal naan fukki fan ak benn. dëgg la loolu mën naa la ko garantal waaye nit ki ñëw ma na la balaay suba li nga bëgg sotti. Mhm. wallaahi xaw ma ko. te tamit est gëm nga loolu tamit dëgg la. non xam nga euh, man euh, du ma toog ne lii nit ki wax du noonu. waaye man li ma yor laay wax. Mhm. li ma yor. Mhm. laay wax te li ma yor laa xam gëstu naa ba fu gëstu yem. waaye mosuñ maay jox noob goo xam ne dañ ne ma wenn quatre heures boo ko defee li nga bëgg sotti. loolu moom gisaguma ko. Mm-hmm. mag ñi nag daañ daan def benn mbir. Mm-hmm. mooy ne nit ki dem si ngoroom. Mm-hmm. di ngoro ji dem ñu ne soxna si de dafa def ay kalab kalab. ñu ne ah loolu lu ko waral ñu ne la xaaral booy dem yóbbaale lii soo demee fexeel ba boo yeggee rek ndaa la fexeel dara toq sa. loolu dina neexal sëy ba ndax loolu daa am li koy waral. waaye ñu ne la lool te boobaa loolu day gaaw balaa ngay ñib si diggante bi daan neex dañ naan la boo demee sax mm-hmm. soo fa nuyoo ba def loolu rek fexeel dem mm-hmm. soo demee ba sa ëllëg sa boo ñëwee du neex waaye toog fa ay fan balaa nga fay jóge danga naan yii moom kay sensé na mm-hmm. loolu moom xamoon naa ko waaye nit ki ñëw ma ne la noob gii fii ak balaay suba euh, li nga bëgg sotti ku koy wër ku ne bul ma woo xaw ko waaye mën naa laa noobal noob yoo xam ne sa diggante ak sa soxna. bu fekkee ne dafa am ay rëq-rëq. Mm-hmm. ak lum ko mën a yëngal. Mm-hmm. su ma la defaree nopp gi may nopp. Mm-hmm. ba def ko si renu garab bii dund. wala ma def ko si janj bii dund. wala ma gas ba mu xóot sul ko dikk toog di wirda seen diggante ku ko yàq ku ne boo ko baxalut musiba dal ko. man maa la wax li diggante bi kay képp koo xam ne ñëw na teg si loxoom ngir yàq ko. ko. yërëm ko waaye nag du ma ko defal kenn koo xam ne takkoo. foofu laa bëgg a ñëw parce que ñi nga xamante ne ay célibataire dañu bëgg a nopp seen gel yi tamit loolu dafa ma dal dalaan ma moo tax ma di si incité dafa bari de dama dikk nit na ma nopp hmm. te man nopp si daara ja laa ragalee sama nopp ba léegi hmm. xam nga taalibe nopp lay njëkk a jàng dëgg la si daara ja laa ragalee sama nopp ndax hmm. dama mos a noobal nit euh, dund si loo xam ne dootuma ko nettali waaw ndax xam nga tey nit ki ñëw na diw dama sama nangam la dama ko war a no dama ko bëgg waaye dafa jafe. Hmm. nga gaaw rek def li nga war a def seet nopp bu gën a tàng nga def ko ndekete moom. Hmm. day da koy caaxaanee dem te xam nga nopp dëgg. Hmm. kuñ ko def mu jàpp. dootoo ànd ak sa sogo xam nga lan mooy baatu nopp. maanaam tey ma jël la. nopp la sama wet ba soo xëyoon war a ñëw fii sax ma ne la bul dem da ngay toog. dëgg la. loolu mooy nopp mhm. léegi nga def ko nit koo xam ne takkut ko defut ko dara mu jël xelam di ko foxee mhm. jaaral fii jaaral fee jaaral fële mhm. léegi loolu ba kañ doo seet li ngay liggéey dëgg bu fekkee ne sëy la sëy ba yëngatu ak li ko mën a yëngal lu mu mën a doon mën naa la si dafa liggéey boo xam ne gën kay tuuti juróom ñaari fan su ma ko liggéey ba noppi sëy ba yëngatu sëy ba continuer di yëngatu moom maanaam bu fekkee ne ku ma jege la ñëwal si daara ji ba dégganteeg moom nu mu la neexee nga dem ñi ñibbi. Mm-hmm. bu fekkee ne ki ma sëri la toogal déglu ko ba ni mu la neexee nga dégg ko ni mu la neexee nga woo ma ne ma dégg naa ko ni ma neexee wala ñi ngi si kër gi ñi ngi si jàmm. Mm-hmm. loolu la. waaye nag ku bëgg ne man xam naa jafe-jafe tey tey laa ko bëgg saafara. yow doxu ci yooyu. waaw laa xoolal feneen daal. Mhm. ñu ngi siy sant yàlla bu baax. Mhm. ndax bëgguma si xóot ndax boo si xóotee. nit dana la wax la loo xam ne du dëgg. te fekk boobaa doo si am pex. dëgg la ndax kàddu ngay jàppee nit. tey jii ku may déglu. Mhm. doo jàpp ngóobe sekk gi de. kàddu gi ngay déglu. dëgg la kàddu gi muy wax ngay doyloo dem na xaaral ma dem si kii. dëgg la ñu ngi siy sant yàlla bu baax ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy wàllu ubbeeku balaa ñu ñëwaat ci li bi ubbeeku alhamdulilah bu dee cangatu ubbeeku moom mhm. maanaam man naa de garantal nit ki maanaam su ma la defaree lee cangat mhm. nga laal ko mhm. ñetti fan gisoo ne gis nga si njëriñ si ubbeeku maanaam jarul ngay xëy continuer arrêté ko waxuma nag waaw non waxuma nag nga laal ko tey na alhamdulilah mënoo koo laal tey gis sa bopp tey dëgg la waaye soo ko commencé def ko ni ma la waxee ñetti fan te gisoo si sa bopp. Mhm. jarut continuer sangat gi arrêté ko te woo ma na ma li ma jox baaxul. baaxul ci ñetti fan. ñetti fan ci ni ko ni mu la ko waxee te nga defee ko noonu. nga defee ko noonu. Mhm. ñetti fan moom foo mën a jaar danga nga gis sa bopp man nag du ma joxe cangat comme nit ki ñëw rek na ma damaa bëgg ubbeeku ma yëkkati cangatu ubbeeku jox la. Mhm. ndax li ko waral mooy. Euh, bu fekkee ne say mbir day dox xëy taxaw. ñaari mbir a am. sa morom moo la gàllankoor wala làmmañ sonal la. Mm. léegi su ma la bëggee mu doxaat faaw damay rocc lool mu soog a dox. dëgg la léegi nag boo dikkee am ay gàllankoor ma yëkkati cangatu ubbeeku rek jox la. Mm-hmm. doo am li la neex. dëgg la. da ngay sangu ba bëgga dee te fekk lu ko kaloon mu ngi kalu ba léegi. dëgg la kon man bu ma dikkee ba ba ba seetal la. Mm-hmm. ndax euh, si biir loolu day jiitu seet. Mm-hmm. kanaa xamoon ne am na koo xam ne mu ngi sangu ba bëgg a dee mm-hmm. ay mbiram doxul lan moo ko waral kooku li ko waral mooy biddiwam moo mujj lëndëm dafa waroon a doon ku fa siiw lool mm-hmm. biddiw bi lëndëm biddiw boobu lëndëm nag cangat du ko dindi mu ngi mel ni tey ma ne la seex euh, bi sa écran téléphone bi dafa dafa tila waaw dëgg la nga ne boo si sottee ndox yàq téléphone bi kon dangay tooyal morso fomp ko léegi nag loolu mooy turu yàlla yu koy setal dëgg la noonu la ñuy lëggee. maam daal faaw nga raxas nit ki ba mu set. faaw nga raxas ko ba pare loo ko xapp rek boobaa day neex waaye nit ki day dëkk di sangu surtout ñu ne bitim réew. sangu naa ba bëgg dee def naa lii ba bëgg dee te amaana am na koo xam ne nii tey. Mhm. boo dindi woon gàllamkoor yi jaratul nga koy sang. te man su ma la dindilee sa gàllamkoor. Mhm. fii ba ilaa yow mi diini maanaam soo ko xasee dindi su la mhm. neexee saafara boobu denc ko. saa boo sentiree sa yaram diis wala ngay lijjanti mu dëgër. laalaat ko. laalaat ko boo ko boo ko laalee lépp dañ. maanaam kay loolu kay xam jàppal fii bàyyil fii. dëgg la. bu dee si wàllu ubbeeku moom. Mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax. kuñ ci jox gisoo loo bëgg ñëwaatal fii nag gisuñ luñ bëgg ñu ngi ngi noonu moom lañ dalaloon du 78 496 98 99 moom daanaka euh, <laughs> mhm. loolu moom quand dañuy wax naan yàlla nañ si yàlla musal <laughs> waaw yaa nañ si yàlla musal la ñuy wax ba noppi xam nga même du du ne du dama koy wax ngir ne dama koo bañ. Mhm. man bañoo benn doomu aadama. Mhm. dama koy wax ngir ne yow bëggoo ko maanaam nit ñi bëggatuñ ko. Mhm. te mbooloo buñ toogee. bëgguñ lii bul ko def. tey buñ dikkoon si kër gi borom kër gi na. man bëgguma ku wañ sama micro bii soo ko wañee danga nga koo tooñ. yéen ñëpp ngeen toog réunion ba ne lii waruñ koo def nii. ku ko def rek yaa jàdd yoon. boobaa bu boo ko defee rek yow kër gi dootoo fi am xorom. Mhm. léegi nag bu ko defee rek dootul am xorom si réew mi te réew mi boo si amul xorom dootoo mën a wax lu saf nit ñi. te mhm. président da ngaa war a wax loo xam ne day saf nit ñi boo nee toog leen ñu toog. Mhm. si misaal tey man. su ma yoree sama daara. sëriñ daara bi ma ne ko taalibe yi de nen di jàng heure yi ak heure yi. bu heure yi jotee ku jàng si wu nangam. sëriñ daara bi mujj moom moom si boppam heure yooyu moo ko du nangoo jàngale. nu nu may def moom. dama koy kii ut keneen. dëgg la. ndax boobaa looloo mooy may jàmm te loolooy may jàmm ñi nga xam ne ñoo ma jox seen euh, bi ma leen di jàngal. dëgg la looloo tax ma ne ñu ngi siy lu yàlla. Mm-hmm. ndax nit ñi ñoo ko bëgg a tut mm-hmm. léegi nag bu fekkee ne man Macky Sall la lan moo tax ba léegi nanguwut wax ne danaa def wala du ma def. loolu moo mooy sama mm, xalaat loolu moo ma jaaxal. Macky te beneen bu si topp dama dégg mi wax si euh, korete gi. Mm-hmm. lan moo tax Macky Sall bii wax làmmañam mu xaraam see tudd Sonko mën na tudd réew mi yëpp. Mhm. képp ku siiw si réew mi mën na laa tudd waaye buñ ko laajee si Sonko du nangoo jaar si tur wi. Ah, mais est-ce que ko intérêt tamit sëñ bi tamit. ba xam nga du intérêt xam nga lu mu a doon. mooy ne tey kii moo jiite euh, palaato bi. Mhm. yow bañ ko wartu tax nga tudd nga ne nga ne moomoo wartu wartu euh, borom kër gi. Mhm. lu ngeen xam jafe-jafe jafe. bii tudd ay employé war naa tudd moomoo. dëgg la. ndax yow dalay lëgg da koy lëggéeyal dëgg la Macky Sall dafa ñuy lëggéeyal mm. ñi di ko fay mm. li métti métti bu toogee di wax si ñu ñi nga xam ne ñooy njiit si réew mi maanaam ñi nga xam ne ñooy siiw si réew mi mm-hmm. buñ ko laajee si Sonko war na mën a jaar si tur bi dëgg la loolu ku manu ku matut kilifa moo koy def mm. kanaa xamoo ñàkk a mat kilifa dëgg mooy yow nga toog ñu ne la diw mii nàngam mm-hmm. nga xaraama tudd koog Mm-hmm. est-ce que kooku yow fu ne bu doon man sama euh, sama taalibe mm-hmm. ma ne taalibe bi xaraam naa jaar si tur est-ce que kooku danaa ko yar dëgg la te Sonko moo kii ma Sall moo war a jiite réew moo war a teg réew mi yëpp si yoon mm-hmm. ba pare xaraam bëgg a tudd ñi bàyyi ñi xolul njiit day xàttan nga mën a supporter lu métti nit ñëw saaka la nga ne ah dafa xamul rek bu xamoon dëgg duma ma saaka continuer di wax ak moom dellusil ko xamal ko man maay kan dafa waroon a toog tudd Sonko xamal ko man may kan ak lan laa yéene si yow. Mhm. loolu moo doon tax ñi toog na ah kii kat wax dëgg yàlla nangam a nangam. dëgg la waaye man mënumaa comprendre daal mu toog. mëntu mhm. wax wii mëntu wax noo mhm. ba pare bëgg di continuer. di indi jafe-jafe si réew mi. Mhm. loolu moom di du du lu jaar yoon. waa daal ñu ngi est-ce que est tamit nekkul réalisation yi nga xamante ne moom la def ci biir réew mi waru tax tamit ñu faraat ki nga xam nga Macky Sall ak sëñ bi nag Macky Sall liggéey xool ku gis. waa xam nga xam nga lu tax euh, Macky Sall liggéeyam ñu bëri ànduñ si. Uh-huh. mooy ne tey mu ngi mel ni. Uh-huh. ma ñëw na la plateau bii. Uh-huh. mën naa koo liggéey si million. benn million boo ma ko joxee ma defar ko ba mu normal. nga gis ku la jege lool na la man de mën naa koo defar lu comme nii. Mhm. waaye man 3 millions nga may jox. 3 millions nga may waaw maanaam tey lim liggéey baax na. Mhm. waaye est-ce que benn comme tey si benn boo xam ne liggéey na ko est-ce que mënuñ si xam tamit ka koy liggéeyaloo doon na koo xamante ne maanaam ku mën la muy liggéeyal. parce que sëñ bi ku nekk lu pont mel xam nga nga def ko ay ay jox ko ay ay ñu xëy suba pont ba daanu wala ñu naan fii daan est-ce que tamit joxul. déedéet xam nga xam nga dul loolu. Uh-huh. réew demeewul noonu réew dafa war a toll foo xam ne nii tey. Mhm. soo defaree tali bi da ngay teg garante yoo xam ne fii ba ay xat su yàqoo danga koy da ngay da ngay ñëw defaraat ko. Mhm. loolu mooy yoon yow xam nga gouvernement yaa ma si gën a xam dara. Mhm. gouvernement mu wartu taxaw naan est-ce que kii mën na lii wala kee mën na lee da ngay xam entre ñi koy defar nii entreprise bi nangam leen. ñi ne ñoo koy defar. fii ba at nangam bu yàqoo yéen a koy defaraat. su yàqoo si diggante bi yéen koy defaraat. loolu kay jeex na waaye léegi da ngay jël benn mbir rafet na baax na lool. Mm-hmm. waaye li nga si def lañ d'accordut. Mm-hmm. looloo tax jël sin milliards yi xapp ko si benn mbir taxaw di xoolee loolu leen nangu. te tim Macky Sall la képp ku ko jege. Mm-hmm. wala nga xam ko. sa mbir baax ku ko jegewut xamoo ko sa dara baaxut. yow fu ne boo bokkoon si maa bi tey su la neexee nga xoo sa xarit yépp na leen ñëw leen. samay mbir baax na maa ngi si biir. ah moom Ousmane Sonko bu faloo tamit ñoo yem moom. billaahi nguur moom moo demee noonu. wallaahi gëw ma loolu. Ah, waxuma du ah, ko def de gëw ko. Ah, te xam naa ne du ko def. Mhm. ndax xam na Ousmane Sonko dafa am buntu yu mën a jaar pour am alal te defut ko. Mhm. xam nga bërki démboo njaay dégg mu ne sama salaire u fi ngay wax ne la demoon ne mm-hmm. wax na fa ne sama salaire mm-hmm. sax soxlawu ma si dara yàllaa ngi may suturaal koo xam ne bu toogoon tey na la mëmoo mais est-ce que tamit loolu loolu loolu ay waxu politicien parce que tamit sëñ bi yow li nga eh. yaakaar nga amoon 2012 ba fal xam nga bu doon bu doon waxu politicien déglu ma bu doon waxu politicien mm-hmm. Ousmane Sonko daf bu toogoon na la mëmoo annonceel ma damaa bëgg ñi dimbale ma sama kër nàngam soo ko annoncé balaa ngoon di jot mu am lu mu bëgg du dëgg mm-hmm. te damaa gis ñoo xam ne yoruñ ay million de ay milliards lañ yor mm-hmm. teg ko fee ngir Sonko te damaa gis ñoo xam ne dañuy dagg seen liggéey tey na mm-hmm. koo xam ne man xamante naa moom xam naa ko bu baax Cheikh Bara li muy dagg yitteem ngir Sonko kenn xamul nu mu toll xam na ñoo xam ne dañ koy jox dara billaahi lu muy perte ngir Sonko mënut koo dabu. waaw mais ëllëg lay dabu ji. non non ah, dabuut ëllëg xam nga lu eh, ay million Mhm. te da koo teg ngir Sonko te day fere ay millions ngir Sonko barki alxuraan mhm. te loolu du loo xam ne dañ ma koy nettali dama see teg sama bët mhm. te kooku noonu tey xam na ñoo xam ne ñu ngi ko doyloo yor ay millions bu leen bëggoon teg leen ab programme lekk seen xaalis te du mujj fen kon bu jëlee léppam teg ko ngir Sonko kooku daa am lu mu yaakaar dëgg kooku tey bu ko Sonko na ko sa oto bi laa soxla mu mu yëkkati ko jox ko dëgg la te tuut si dara lu hmm. dul ne moom Sonko ñëw na wax ko lu ko doy mu ne man kat réew mi bëgg naa mu jag damay ànd ak moom damay ànd te Sonko ñu ànd ak moom yëpp loolu la Sonko hmm. xamul kenn ko ànd ak moom ngir xaalis hmm. da nga ànd ak moom ngir ne réew mi laa bëgg mu jag ma ne ñu ànd ak Sonko man da ngay gis ku riis lool di fere alalam ngir Sonko gisoo fi bërki Dembo Ndiaye ñu ne diw mii nekk na si euh, euh, ànd ak Sonko ñi dikk toj ay otoom te mu nga kaso te mujjut fen kooku est-ce que bu toogoon si otoom yooyu. Mhm. Euh, gëntu neex mu nekk si Sonko. waaye dafa gëm ne moom réewam dafa war a avancer romb fii. dëgg la loolu la. Mhm. loolu la nit ñi toppee Sonko Sonko toppuñ ko ngir ne dañoo bëgg dara Sonko dañ ko topp ni ngir ne réew mi dafa war a avancer réew mi dafa war a wesu fu mu toll. Mhm. loolu la te réew loolu koy defar dañuy toog ndaw yi soppeeku am xalaat. na réew mi fii la toll waroon naa wesu fii. waroon neen di tollu ba nga xam ne tëli bii. yow dalay leer ne soo fi jaaree coono bii du la topp. waaye xam na heure yoo xam ne soo départ woon war a ñëw fii. Mhm. foo mën a jaar da ngay tardé. Euh, bu dee parcelle la day xat. Mhm. bu dee Cambérène la day xat. Mhm. bu dee bii dakaar la fépp ay xat. doo mën a ñëw fenn lu ko waral mooy tëli yi baaxut. dara normalu nit ñi gëm ni loolu daa war a sensé ba nga xam ne ñu ne bitim réew dootuñ soxlaa tukki dañuy toog seen réew di tekki mhm. loolu la ko nit ñi toppee waaye toppee wuñ ko ne ëllëg lii laay am si moom mhm. bu doon loolu la billaay du am kenn ku ko topp dëgg la ñu ngi siy sant yàlla di ko ñaanal yàlla jàmm mhm. fu ñu mën a toll nañ ko ñaanal yàlla loolu daal la ñuy sàkku si ñëpp alhamdulilah mi ngi noonu ñu koy jaajëfal ñëw sama dernière question balaa ñu ñëw ci yeneen actualité euh, balaa ñëwaat ci beneen question actualité mooy li nga xamante ne mooy wàllum jaaro bi euh, jaaro da nga ci faral di yëngu waaw bu baax sax. moom jaaru moom li ma siy wax rek. mais bi jaaro moom ñi ci yëngu bari na te daf mel am na ñoo xam ne dañuy naxale. waaw xam nga man man moom lenn laay wax. Mhm. mooy boo éviter nit. Mhm. sëriñ. Mhm. nga ñëw mu teg ñi loxoom nga gis juróomi baaraam yi mu takku si jaaro bu la waxee na la damaa man jaaro bu wér na ko xaaral ba xam benn jaaro bu wér booy takk sa loxo miy dox man fu ne nii sama jaaru bi ñi mu ma koo takk bët bu set. lu tax loolu. daa am doole. barke alquraani karimu te sëriñ boo xam ne da nga naan damay lëggéey jaaro mhm. euh, sëriñ boo xam ne da ngay lëggéey jaaro mhm. te yow benn jaaro bi ngay takk doyul la da ngay wut juróomi jaaro ba juróom benn wala nga ut fii ñett fii ñett mii juróom benn jaaro mhm. kooku bu ne ma mën naa defar jaaro gëw ko man jaaro bi ma lay joxe mënuma la koo garantaal naan la su ma la ko joxee euh, balaay déwén nga am li nga bëgg waaye li ma lay wax mooy boo ko takkee weer gisoo ne jaaro bi jëriñ na la tekki ko te woo ma li ma jox baaxul Mm-hmm. ndax jaaro mm-hmm. da nga koo war a takk pour looy yóotu jot si jaaro war a da koo war a takk pour bu la dara namoon a dal danga koy xool si jaaro bi te man sama jaaru boo ko takkee mm-hmm. li lay dal si jaaro bi nga koy xoolee noo koy si jaaru bi waaw noonu loolu boo ko takkee danga ko xam bu doon gàllankoor di ñëw da ngay gis jaaru bi xam beneen melokaan per bi mel noo xam ne da nga naan lii moom nu lu ko waral dëgg la boo ko defee benn yoon nga koy def gis ay maanaam Euh, benn yoon la koy def. nga mm. xam lii. te mm. maanaam nga xam ne lii gàllankoor bi la te du yegsi. Mm. waaw xam nga bu fekkoon ne li yegsi la dootul feeñ si jaaro bi. Mm-hmm. léegi nag beneen yoon bu ko defee rek. dang naa naa ah, am na loo xam ne ñu ngi ma ko doon def waaye suñu borom suturaal na ma si waaye nag ku ko takk mooy yàlla dootul baax dootoo ko gis dootoo ko gis waaw takk ko mooy yàlla moom rek lay bañ waaye lu mooy loolu mm-hmm. soo ko takkee loo si yóotu jotoo ko mm-hmm. ñëwal ba si man na ma jaaru bu ma jox baaxul te boo ko yoree lépp loo doon takk tekki ko ab weer nga dëgg la ñu siy sant yàlla bu baax loolu du secret euh, xale secret mag la. secret mag waaw piir waaye nag weer boo ko yoree. Mhm. juróom-ñaari weer yoo ko takk lu ne danga ko saraxel ganaar gu weex ak gu xonq juróom-ñaari weer waaw loolu moom garante la si ñu ngi ciy sant yàlla bu ngi noonu euh, te nag moom moo daloon suñu invité di Serigne Gobé Seck Saloum Saloum euh, wax dëgg fi yàlla mu doon koo xamante ni nag euh, ku xam li muy wax la waaye tamit ku ko teg fu wóor la waaye tamit lépp dafa jàng bi jàng jotee dafa xam tamit bi xam jotee toirkàlla mu doon koo xamante ni wax dëgg fi yàlla xamee wuñ ko lu dul nekk daara ak jàngale ak alxuraan Serigne Gobé nag temps bi daanay jeex lan ngay tàggatoog internet yi sant yàlla bu baax di wax ne hmm. dañoo bokk si réew mi rek Mm-hmm. bëgg réew mi avancé ba suñ déparé fii jëm Saalum. Mm-hmm. ñu mën koo daw si diggante bu gàtt di dem di ñëw. Mm-hmm. réew dem ak ñëw bu gaaw moo koy doxal. looloo tax ñu futteeku ngir di waxal réew mi sin bëgg-bëgg. ak sin xalaat. suñ sañoon suñ bayee. gerte gi dana baax dana normal te engrais bi du seer. waaye lépp a seer engrais bi dafa seer. Euh, te boo bayee dara du baax. engrais bi ñax la lay indil waaye du la indil gerte. kon dañuy bëgg euh, ñu jàppale ñi si loolu. Mm-hmm. di ñaan yàlla Sonko. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm. bu dee ne moo gën si réew mi yàlla na ko yàlla jox si joxin bu sedd. Mm-hmm. donte yaakaaruñ ko faaw mu tàng. waaw waaye ñu ngi sant yàlla bu baax. di leen gërëm di wax ne. yoonu Saalum yi moo ñuy fatt moo tax bët bu sedd duñ fi mën a ñëw waaye konoon heure boo ko sàkkoo ñi ñëw macha allah waaye saa buñ fi teewati daañ la wax ne teew na te boo ñuy éviter daañ ñëw insha allahu rabbi lépp lu fi jub rek xam leen ne mayu yàlla moo ñuy gunge mm. lépp lu fi dëng xam leen dañoo matagu tey jéem wax mm-hmm. ñu ngi siy sant baax alhamdulilah aca macha allah mu ngi noonu Serigne Gobe Seck Saalum Saalum ñu koy jaajëfal bu baax a baax teew gi nga xamante ne teew na suñu plateau waaye tam waxtaan bi neex na trop parce que nga xamante ni bëggul jeex waaye nag lañ ñu jégloon ci temps muy daal ah, comme ni ngeen ko daal Euh, ñuy jaajëfal ki nga xamante nag moom moo nekkoon ci xarala gi ah, muy dóor wax dëgg fa bu image setee moom la bu son bi setee moom la waaye rawatina internet yi nga xamante ne yéen ñu doon suivre ci suñu nga xamante ne nag moom mooy Sunugal 24 mën ngeen nag wéy di ko continuer di topp suñu ay programme ci suñu plateforme yi moo xam Facebook la moo xam YouTube la Instagram Twitter ah, Sunugal 24 dina leen fa nekkal yéen suñu ay internet ah, di nga xamante ne nag wax dëgg fa yàlla ñoo ñuy bàyyi xel di leen jox nag dëgg daje ba beneen incha allah ak fii Sunugal 24 jërë ngeen jëf Thank you.